alayhi wa sallam soppe yàlla gis xaritu yàlla gis sangu mbindeef yi yàlla bu yàlla ngi julli ci moom julli gu ëmbaale njabootam gu sell gi ak saxaaba yi tedd yi nga xam ni góor góor luñ di wujjin te topp yàlla ba jiitu ci yiw yu jëkk ya ci fukki fan yu jëkk ci zul xijja ngir yàlla doli leen imaan ak ngir fa tabarakallahu yàlla nañu yàlla taas ci seen barke mbokk jullit yi ñu ngi leen di yee salaat dénkaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di xadis bu wér limaamu Buxaari ak Muslim rahimahumullahu sorox wax ni sang bi nee na alayhi salaatu wasalaam képp koo xam ne bisu ajjuma waxtu yi limaam di xutba wax nga si sa mbokk noppil feeñal nga ñàkk teggin ci xadara yàlla ne la bir su boobaa ñu amuloo juma waxtu woo ñibbee da ngaa fay ci tisbaar mu dellu wax it ni képp koo xam ni waxtu yi limaam di xutba wax nga sa mbokk sit yàgg ci wax noppil yéen a bokk atte ne la biir su boobaa it ñu amuloo juma soo ñibbee da ngaa fay tisbaar mu di dénkaane yu mag yoo xam ni kenn ku ci ne war na sàmmonte ak moom ngir sañ yaakaar yërmande ak ngëneel yi nga xam ni aju na ci bis bu tedd bii ci waxtu wii te yàlla bu mu ump benn jullit te tabaarakallahu ñu dellu si waat ci bis bu tedd bi di leen ziyaara ànd ak di leen ndokkeel ci bis tabaski bis duñ leen yàlla mu nangul leen te nangul ñu yal nañ ko teewaat diwoon yu bare bare bare mbokk yi ci xarama yi yal na yàlla nangu leen seen aj yal nañu leen sargat ko bànneex ci kaw suuf bi xurmati alquran al azim mbokk jullit yi ñu ngi dénk suñu bopp ci di leen dénk ragal yàlla saxaaba bu tedd radiyallahu anhu Taawiq ibnu Shihab ne benn yahud ñëw na ci Umar ibnu Xataab radiyallahu anhu ni ko yaa amiral muminin am na ci seen téere alquran benn aaya boo xam ni su wàccoon ci biiru yahud dañu ngir bis bi ñu wàcc def ko muy bisu feet Umar tontu ko ni ko radiyallahu anhu aaya boobu ban la mu ni ko fi yàlla di waxe naan al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum al islaama diinan bi yàlla di wax sallallahu alayhi wa sallam naan ko bis la ko tey lépp waroon ñëw ci diine ji mat na def naa lislaam muy diine ji mu gërëm Umar ni ko radiyallahu anhu xam naa aaya boobu ban bis la wàcc ak ban waxtu la wàcc ñu ngi wàcc bëccëgu arafa bu tombeeg bisu ajjuma wante alhamdulilah yàlla def na ko muy bisu feet arafa di bisu feet tabaski di bisu feet ibadallah في هذا الأسبوع يومان كريمان بل يومان عظيمان يحملان أفضل المناسبات وأجمل الذكريات هما يوم عرفة الله الأعظم ويوم العيد الأكبر أما يوم عرفة فهو يوم مزيد يجتمع فيه المسلمون على اختلاف ألسنتهم وتباين عاداتهم وتنوع أجناسهم على أرض عرفة ينادون ربا واحدا وقد تجردوا من ملابسهم حفاة عراة مكشوف الرؤوس خادع النفوس لباسهم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم القرآن واحد يدعون ربا ربهم رغبا ورهبا قائلين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك mbokk te bii semaine bii yàlla dugal na si ñaari bis yu tedd ñaari bis yu màgg yu ëmb tabaarakallahu fàttaliku yàlla yu gën a kawe muy bisu arafatullahi al azam ak bisu tabaski bisu arafat muy bis bi nga xam ni yàlla dana wu julli yi ñëpp dajale ci suufu arafa ak seen làkk yu wute ak seen aada yu wute ak seen jëmm yu wute ci xeet yu ñuul xeet yu weex xeet yu xonq ñëpp nuroo la ñuy woo mooy benn yàlla la ñu gëm laa ilaha illa allah ñëpp nuroo benn yére ba ñu sol mooy armal bi ñoom ñëpp ak seen bopp leen ca góor ya bakkan bu toroxlu di woo benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn téere lañu gëm muy alquran ñoo ngi woo yàlla ànd ak toroxlu ànd ak ñaan nan ko yàlla wuusu nañu sa woote bi yàlla bokkaalewuñu ak yow lenn ak kenn ak dara cant ak nguur yaa ko yeewoo subhanahu wa taala يذكرون في هذا اليوم إكمال الإسلام وإتمام نعمة القرآن يذكرون موقف نبيهم في مثل هذا اليوم وقد وقف صلى الله عليه وسلم على ناقته القصوى يخطب في المسلمين ñu di fàttali ko ci bis bu tedd boobu ne bis bi yàlla matale lépp lu war a ñëw ci alquran ñu di fàttali ko keroog jooju ne taxawaayu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ardu arafa ñu ngi taxaw ci kaw gëli moom gu sell ga janoog julli yi di leen waar fa muy ajam bu mujj fa li dalika xallada allahu dikra yowma arafa وجعله موسما عالميا ومؤتمرا اسلاميا يحج اليه المسلمون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وجعله ركنا في الحج فمن فاته فات حجه وعليه قضاؤه في العام القادم يقول صلى الله عليه وسلم الحج عرفه ما جاي بس بوبري moo tax yàlla mandargaal ko def ko muy woote lislaam bi gën a mag ci alam bi jërëjëf di ci aj jóge ci goxu adduna yëpp ngir teewe njëriñu adduna ak àllaaxira yi nga xam ni yàlla dëxañ na leen bis boobu la ci suufu arafa def ko it muy ponk bi gën mag ci aj bi mu ni alxajju arafa aj bi daal mooy taxawaayu arafa képp ku yàlla may nga taxawu arafa am nga aj képp ku wuti arafa da nga koy faj ak ma ak ma sa topp fa ixwanana min almuslimin فيحيون ذكراه بمكة بوقوفهم على أرضه في موقف عظيم وإذ يباهي الله بهم ملائكته فيقول لهم انظروا إلى عبادي فقد أتوني شغفا غبرا ضاحين قد فارقوا أوطانهم وذكروني وتركوا أولادهم وشكروني أشهدكم أني قد غفرت لهم جميعا mbokk jullit yi lenn ci ñun fii jii ñëw na suufu makkatal mukarrama def nañu tawaaful ifaada fas yéene fanaan yi mun nan ngir sànni jamratul wusta wa jamratul suwara yal na ko yàlla mottali bis bi nga xam ni yàlla sëf na jaam yi woo malaayika yi ñu ngi góob ci kanamam ni ko labbayka wa saadayka rabbana wal xayri kulluhu fi yadayka mu ñu xooleel samay jaam ñu ngi jox ci jóge ci goxu adduna yi sore sëbëskee nañu seen lu ñu am wan nañu gannaaw seen njaboot wan nañu gannaaw seen réew ngir sant si ko man yàlla yéen samay malaayika yi seede leen ni baal naa leen ñoom ñëpp boole seen yal nañu yàlla taas ci seen barke amma nahnu allazina lam yatasayyan la yatayassar lana alwuquf wa lam yuktab lana alhajj فعلينا أن ندعو لهم وأن نشاركهم في أرواحنا وأن نصوم يوم عرفة شكرا لله تعالى على تمام نعمة الإسلام وكمال الإيمان عسى أن نكون في هذا اليوم من المقبولين nal ñi nga xam ni nag yàlla yombalu leen teew ca suufu makkata li ñu war mooy mooy ñu ànd ak ñoom ci sunu roox ànd ak ñoom ci sunu xol ndi mu yomb war nañ bisu arafa sante ko yàlla ci bis bi matal lépp lu war a ñëw ci lislaam ak ci liimaan ngir yàlla boole ñu ca ña muy nangul insha allahu taala wa tazaawaru fi ayaadikum wa taarafu wa tanaasaru fi ma baynakum wa taatafu wa xarisu kull alxirs ala an tataalafu fal xayr kullu xayr fi taalufi bis bi sopp nañu ku si ziyaarante te yàlla tax balonte ak te yàlla tax nemmeekonte te yàlla tax ndamalante ci kaw lislaamu dëgg te yàlla tax xër dëgg-dëgg xër ci yërëmante ak soppante ndax bépp yiw yàlla nga ko dëxañ ci yiw ak soppante yan nañ ci yàlla xëy te nangul jox qaala sallallahu alayhi wa sallam ma min ayamin al amalu salih ahabu fiha ila allah min ashri dil hijja قالوا يا رسول الله ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam amul benn bis bu yàlla gën a topp ci bis yi ku ci def jëf ju baax ba def fukki fan yi ñu doon dund ba tey ji ñu ni ko yaa rasulallah ba ndax moo gën jihaad xeex ci yoonu yàlla mu ni wallahi moo gën jihaad ndaree koo xam ni dafa génnoon di jihaadi dellu ci lu indaale bakkan indiwul alal xanaa kooku la remplacé kon bis yu màgg lañu fattaqu llah ayuha almuslimun wa tadakkaru fi hazayni alyawmayni alxayra واعملوا ما شئتم من البر يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم kon sama mbokk jullit yi ñoo ngi dénk suñu bopp ci di leen dénk ragal yàlla te sàmmonte ci bis yi ñu dund def yiw saraxe seeti ku feebar gunge néew jokk mbokk baal ko tooñ jox ku la xañ yërëm yërëm yi tabaarakallaahu sàllal nday joru yërmale fuqaraaw masakin yàlla yi ngir yàlla wërsëgal ñu cër ci yërmaleem gi defar ñu leer goo xam ni fa la ñuy dox ci kaw suuf ak njëggalu bakkaar ci adduna ak ci àllaaxira yan nañu yàlla xiir ci boppam yan nañu yàlla xiir ci lu mu gërëm yan nañu yàlla nangul tabaski yan nañu yàlla dëppale ak sunna sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi dhi ljalali wal ikram dhi tawli wal in'am وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا رسول الله وسيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام الذين صدقوا مع الله فصدق الله معهم وغفر لهم وآتاهم من لدنه أجرا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ولا تكونوا كالذين قالوا آمنا وهم لا يؤمنون فقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم mbokk jullit yi gannaaw ba ñu delloo tudd màggu yàlla tabaraka wa taala soroxlu ci kanamam sabbal ko sant ko julli ci gën ji mbindeef sallallahu alayhi wa sallam julli gu dul dog du dog gi ëmbaale njabootam gu sell gi ak saxaabaam yu tedd yi ak taabiina yi bi ila yawmi diin yan nañu ci yàlla boole mbokk jullit yi ñoo ngi dénk suñu bopp te di leen dénku ragal yàlla mi nga xam ni moom la ñu wootee ni moom la ñu gëm gëm yàlla dundin la gëm yàlla nekkin la gëm yàlla toogin la bañ a mel nañu naan gëm nañu yàlla seen lammiñ te seen xol li ma nekku ci yan nañu ump nañu leen delloo xel yi ci yàlla wax borom bi ne yéen ñi gëm yàlla gëm yi mu santaane te gëm ca raay ba mel ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal ko te sax ci loolu ba su dee dee ñëw mu fekk leen ngeen di jullit yu koy gëm te ragal ko yan nañu ko yàlla wërsëgal li ñu koy may moo di sax ci li yàlla woote borom bi ne daf ñu sant ñu jub ñu juboo te di jubal daf ñu sant rafetal daf ñu sant jokk mbokk ne tere nañu def lu bon tere nañu def lu ñaaw tere nañu bew képp ku sàmmoon teeg dénkaane yàlla yi insha allahu taala mu jural la ragal yàlla fexe adduna ak alaxira ñoo ngi toroxlu ànd ak di ñaan yan nañu yàlla boole xool ba tu yërmande fi diini wa dunya wal axira yan nañu yàlla boole jéggal sunuy bakkaar yu jëkk ak yu mujj yu feeñ ak yu làqu yu ñu tayee yu ñu tayul jéggal ka mboole seen jul yàlla bu ñu yàlla jàppe ci adduna wala ci alaxira bakkaar yàlla bu ko yàlla jàppe benn jullit lu bakkaar rëy rëy ak lu bakkaar ñaaw ñaaw yan nañu ko yàlla baal baal ko bépp jullit fi diini wa dunya wal axira suñu way dawee yi ci biir suuf yan na yàlla yërëm leen yan na yàlla jéggal leen yan na yàlla yaatal seen yërmande ak seen njéggal ba ëllëg ñun ñëpp suñu ñëwee xaj ca yërmale googu ak njéggal googu mbokk ci xaramay ni sharifay ni yan nañu motta leen sa yan na yàlla nangul leen yan nañu yàlla taas ci seen barke suñu sëriñ alxaaji Maajoor Siise radiallahu anhu yan na yàlla yokk leeram yan na yàlla yokk ngërëmam yan nañu ko yàlla fayal jazaa al muhsinina njaboot gi ka fi wuutu ci doom ak taalibe góor ak jigéen yàlla saxal seen juboo seen dëppoo seen jàppante bu rafet ba ñu téye ndono ji mu leen bàyyi téye bu jur ngërëmal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahuma jaal jamana hada jaman marhuman wa tafarruqana min baadihi تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القران العظيم وثبتني واياكم على الصراط المستقيم واجارني واياكم من عذابه الاليم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين انه هو الغفور الرحيم اذكروا الله يذكركم